waaw mbokk incha allah ñu ngi war a jël tey aaya 46 ci suuratul kahfi fi suñu borom di waxee ni almaalu walbanuun ziinatul xaya xayaati dunia almaalu walbanuun ziinatul xayaati dunia kon mbokk ñi ngi santar suñu boroom subhanahu wa taala ci wërsëgal gim ñu wërsëgal ñu dajawaat tey ci ab néegam di fas yéene jàng la nga xam ne muy ab téeréem loole suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam dajaleel ñu ci ay mbég yu bari yuy bawoo ci suñu boroom ñu ngi ñaan suñu boroom loolu lépp yal na yàlla boole ñu ko jagleel ñu ko ca defal ko it ña nga xam ne ñoom ñoo koy déglu gannaaw ba ca it fayal ñu it ñooñu nga xam ne ñoo dox suñu diggante ak ñoom di fexe ba wax ji di yegg ca ñoom incha allah kon suñu bind bi ñoo ngi koy jël tey nekk dix-neuf ci weeru muharram ci atum mille quatre cent quarante et un su dee ne Cheikh Ousmane pare na ñu jël suñu bind bu njëkk
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم suñu boroom jalla wa ala mu ne almaalu walbanuun lii nga xam ne mooy alal ak i doom ziinatul xayaati dunia taarug dund àdduna rekk la walbaaqiyaatu saalihaat waaye ya nga xam ne mooy ya sax di yu yiw ya xayrun inda rabbika sawaaba lool day moo gën ca sa boroom lii di ak pay wa xayrun amala te it moo gën ci loo xam ne nit ki dana ko mébét di ko yaakaar dajeg moom wa yowma nusayiru aljibaal bis ba nga xam ne daan doxloo montagne ya wa taral arda barisa nga gis suuf mu daal di feeñ dara laqatu ko wa xasharnaahum falam nugaadir minhum ahada ñu dajale leen duñu desal gannaaw kenn ci ñoom wa uridu ala rabbika saffa ñu gaaral leen ci seen boroom ñu nekk sappe laqad ji'tumuuna kama xalaqnaakum awwala marra ñun dey yàlla dikkal ngeen ñu comme niñ leen bindee woon ca njëlbeen gu jëkk ga bal zaamtum an lan naj'ala lakum maw'ida waaye yéen dey da ngeen jortoon ne duñ leen defal mukk dig bu ñu war a daje ak yéen wa wudi alkitaab noonu la ñuy tege téere ba muy téere jëf ya fa tara almujrimina mushfiqina mimma fiihi nga gis ñi nga xam ne ñooy def kotu bakkaar yu mag ya doon ñu tiit lool ca la nekk ci téere boobe wa yaquluuna ya waylatana ñu ne ay waay ñi ngi woo suñu alkaange maa li haadha alkitaab lan moo ñee bi la téere laa yugaadiru saxiratan wala kabiratan illa axsaha moom day du bàyyi lenn lu tuuti wala lenn lu mag lu dul peek na ko wa wajadu ma amilu xaadira keroog la ñuy fekk lépp lu ñu jëfoon muy aji teew wala yazlimu rabbuka ahada sa borom yàlla nag moom du tooñ kenn mi ngi noonu mbokk julit day gëm ni àdduna ji suñu borom moo ko moom moo ñu fi indi amul kenn koo xam ni dana fi gis dara di fi moom dara lu dul ne loolu ci yàlla la jóge looloo tax mu ne alal jii dey alal kër oto xaalis booy def ca banque jardin lépp loo xam ne dañ koy moom ak la nga xam ne mooy seen doom yi dey taar la boo xam ne yàlla moo ko taarale la nga xam ni mooy dundug àdduna gi loolu nag bu ñuy delloo ca bopp saar ba danga ko fay fekk suñu borom ne inna ja'alna ma ala al ardi zinatan laha ngir lan li nabluwahum ayyuhum ahsanu amala mbokk àdduna yàlla ko taaral comme na ko yonent bi alayhi salaam waxa ci xadis ba ad dunya xulwatun xadira neex na lool bànneex yi taaru na lool waaye lan muy jubluwaayu suñu borom def loolu lépp mooy ngir nattu ay jaamam ana kan mooy profito ci taar boobu dimbinikoo ko ba am ca ngërëmal boroomam ak kan mooy topp taar boobee ba fàtte la taxoon yàlla bind ko indi ko ci kaw suuf su ko defee yow dilit ngal la waay faggul alal waaye fagguwun wala nekk jaamu yàlla ndax jaamu yàlla gi mooy priorité bépp alal boo xam ne nañ koy faggoo dëppoowul ak ngërëmal yàlla nga la way xamal ne alal jooju au départ baaxul ca mënatoo caa defet lu baax abadan gannaaw ba itamit alal joojee na nekk sa jubluwaayu sàkku sàkku ca ngërëmal yàlla loolu day boo ko defee alal ji dana doon yiw ñeel la doom yi it naka noonu yàlla koy jagleel ku ko neex ci ay jaamam ñii mu jox leen ñaar fukk ñii fukk ñii juróom ñii góor kese ñii jigéen kese ñii dara loolu lépp nattu la yu suñu borom yàlla subhanahu wa taala di nattoo waaye nee na lépp ci àdduna la yem lan mooy des lii des mooy la yonent bi alayhi salaam waxoon nee na jaam bi day ñetti mbir mi ngi ko topp mbir bu njëkk ba mooy la nga xam ne mooy ay jegeñaaleem alal jaag xarit yaag dëkkandoo yaag ila axiri gannaaw ba la ko yàlla wërsëgal ci alal ñetteel ba nag mooy jëf yi muy jëf nee na soo demee ba dugg bàmmeel ñaar yi dañuy dëpp alal ja day dëpp njaboot ga dëpp lan ngay dese mooy sa jëf looloo tax ki xel lu dëgg-dëgg suñu borom nee na mooy kay jéem a dajale la nga xam ne mooy des ak moom mu rafetal ko te mooy albaaqiyaatu saalihaat borom bi nee na loolu moo gën pay te it loolu dong mooy gën mébét képp koo xamee ni nii alal ja ak doom ya daa doxal sa diggante ak jaamu yàlla soo demee yowmal qiyaam lay wax maa agna anni maliya halaka anni sultaaniya ay waay sama alal jama daje woon dajale woon li muy bari bari jëriñu ma dara tey loolu moo tax ba mbokk xamal ne albaqiyatu salihat mooy bépp jëf bu yàlla gërëm bépp jëf bu yàlla santaane gërëm ko ñu defal ko ko soo ko defee te yàlla tax mu bokk min al baqiyati salihat la cay gën a nekk priorité mooy waxtu julli juróom joxe zakat woor weeru koor aj makka waaye bokk na mbokk loo xam ne ci baqiyatu salihat yi gën a yomb boor ak baadoolo man ko ki feebar ak ki wér man ko ki nekk ci soxla ak ki ci nekkul kiy tukki ak ci toog ñépp man ko mooy li ñuy tuddee zikrullah zikrullah mooy baqiyatu salihat bi gën a sax gën a yomb ci ëpp njëriñ lool subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله lii di salaatu ala nabi ak yu demee noonu ngallawaay mbokk julit xamal leen ne doomu aadama yi daañ rawante foofu ca heure boo demee àllaxira bokk na rëcc ba ngay gën a rëcc mooy naka laa tooge woon diir sàngam yàqu ko ci zéro ca profité woo ma ci woon liggéey ca loo xam ne dana sax ñeel ma yowmal qiyaama loolu mbokk ku nekk ci ñun war a góorgóorlu war ca bàyyi xel gën a yokkaat sunu zikrullah ngir sunu baqiyat salihat gën a bari borom bi nga xam ne moo moom àdduna temps tënku ko looloo tax mu daal di ñëw indi lu ñu àllaaxira naka lay demee mbokk àllaaxira sunu suuf bi ñu nekk suñu borom moo ci placé ay montagne am na ci montagne yoo xam ne dana nekk huit kilomètres ci kaw ay limalaya ak yu demee noonu mën nañ dem ba ay dix kilomètres loolee doon yoo xam ne dana gudd lool def des kilomètres waaye suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na bis dana ñëw mu doxal ko nam koy doxale it nettali nañ ko feneen wa humilat al ardu wal jibal fa dukkata dakkatan waxida suñu borom montagne yi da koy def poussière su ko defee mu mel ne benn xiin buy dem daa ji dem fatt mboolem xur yi nekkoon ci kaw suuf loolu tax suuf day tàlli ñareet montagne amatul xur amatul laa tara fiha iwajan wala amta cala nag suñu borom yàlla di dekkal doomu aadama yi cala suñu borom yàlla di dekkal lu mas a dox ci kaw suuf nee na du ma bàyyi kenn ba xatta ñi nga xam ne seen biiru yaay yàlla mayoon na leen ci ruux ñu daal di faatu seen biiru yaay yowmal qiyaama yàlla da leen di dekkal ñépp taxaw borom bi nee na dana ñu gaaral ci kanamam ñu nekk benn sappe rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ñi ci seen cati baaraam la ñuy taxaw suñu borom yàlla rankale leen ñaq bi di tuuru ba ñii ñaq ba yegg seeni kosten ñii seen oom ñii seen ndigg ñi ñaq bi dem ba yegg ci seeni tuñ borom boobu subhanahu wa taala ne dikki ngeen na ma leen binde woon ci njëlbeen góor ak jigéen kenn du sol yére amul mbaxane amul dàll ñépp yaramu neen futtu su ay Aïcha ne yonent yàlla yónni yow mi yàlla yónni góor ak jigéen mu ne ko Aïcha mbir ba gën naa ñàng ci ngay xalaat ndax man ay góor laa taxawal wala ay jigéen laa taxawal mbokk loolu mooy yowmal qiyaama bi nga xam ni képp koo xam ne da ngaa réy réylu da ngaa xamul mbokk suñu borom kenn du réy ci kanamam loolu da ngay gis ne am na benn vidéo bu mbokk yi di tasaare ci réseaux sociaux yi temps yi kenn ci sëriñu Sénégal yi di wax ne man day ba ma demee omra ji dama ñëw dem ci sama sëriñ bu mag da ko umra bi daal sonn naa ci coono boo xam ne aj màkk gi moom dama koy leb rek ndax moom vraiment daa sonn nee na sëriñ bi na ko yow ak man ak kan aj màkk dafa soof xoolal rek góor gu dëkk ci wodd rek waaye loolu daa soof waay mbokk loolu da ngay gis Sénégal gi dañ ko fi wax waaye mbokk suñu borom yàlla mi ñuy ajal màkka nga xam ni koddaay gam ñu fa sant léegi nag ci trois jours quatre jours sax mën na caa jeex yowmal qiyaama dana la génn sa bàmmeel nga nekk yaramu neen fut sëriñ ak taalibe góor ak jigéen mag ak ndaw ñépp kama xalaqnaakum awwala marra baram boobu nag ne mi ngi noonu yéen yéeféer yi jàppoon ngeen ne duma daje ak yéen tey ca la borom bi di sant malaaka yi ñu génne téere yi képp kenn ci ñun ak téereem ña nga xamee ni dañoo jaaruloon fa neex yàlla buñ jàngee seenub téere ñu ne cey waay bi def téere moom day yi gënoon a tuuti yañ jàppul woon ne du dara bàyyiwu ci dara la gën a màgg bàyyiwu ci dara suñu borom ne nag keroog lépp loo xam ne jëfan ngeen ko da ngeen ko fa fekk ci sa borom yàlla du tooñ kenn ci ay jaamam mbokk loolu benn wattaay la boo xam ne mi ngi suñu kanam képp kenn ci ñun daka dana ko fekkee heure bu ñu fay dajee yàlla na yàlla teeroo ñu fa jéggalam ak yërmande mi ngi noonu Cheikh Ousmane
إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها وظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا barakallahu fikum suñu borom mu ni wa id qulna lil malaikati isjudu li aadam fàttalikul bi ñuy wax malaaka yi sujuutal leen aadama fa sajadu illa iblis ñoom ñépp ñu sujuut ba mu des iblis kaana min al jinni moom ca jinne ya la bokkoon fa fasaxa an amri rabbi mu daa di génn ak topp ca ndigali boroomam afa tattaxizuunahu wa zurriyata ama ndax da ngeen koy jàpp moog njabootam awliyaa min duuni ngeen def leen ay féete ci lu bokkul ak man wa hum lakum adu ci seytaane moomu seen noon la bisa li zalimina badala aka bon ñeel tooñkat yi lañu weccee ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض من دا سيدة وومالين بمالين دي بمي بلا أسماني أكسوف ولا خلق أنفسهم جاب مالين ونين أي سيدة بمي بند سيني بكاني وما كنت متخذ المضلين عددا كمان داي نيك مو مك دي جاب ني رير لاتي دي لين ديف ني ماي ديمبينديكو من يالله ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم bis bi ñuy wax naan woo leen samay bokkaale yi ngeen jortoon fa daawhum fa lam yastajibu lahum dañ leen woo ñooñu duñu leen wuyu wa jaalna baynahum mawbiqa ñu def seen diggante la nga xam ne mooy ak alkaange wara al mujrimuna annar keroog la tooñkat yi kàccoor ya di gis safara fa zannu annahum mawaqi'uha ñu jàpp ne ñoom day aji ñuy tabbi ci biir sawara soosee la ñuy doon walam yajidu anha masrifa ca duñu mën a am feneen fu dul safara foo xam ne dañ fa mën a wëlbatiku di fa jëm mi ngi noonu mbokk suñu borom mi def lu ko neex ci coobareem la ñuy bindee waaye ci coobareem it la ñuy bindal ab noon noon boobu moom mooy bàyyu jinne yi te moom la ñuy tuddee iblis suñu borom yàlla bi mu bindee li nekk ci kaw suuf yépp dafa bind sunu bay aadama gannaaw ba mu wax malaaka yi sujuutal leen aadama moom mi nga xam ne mooy tànn lu ko neex malaaka yi nga xam ne duñ mooy seen boroom ñoom jéemuñu di posé wu question lu tax ñi war a sujuut wala lu tax duñu war a sujuut te loolu it mooy waru garu julit mbokk julit ndigal bi jóge ci yàlla xel wóorul am foofu ñi ngi leen koy wax ci tafsir yi passé soo demee ci règlement militaire bi ñu tëral sur le plan international ñoom dañ naan la ordre bu jógee ci chef yi da ngay exécuter ordre bi doog réfléchir li nga noonu waaye ñun loolu islam mi ngi ñu ko wax suñu digganteeg yàlla ak yonent yàlla suñu digganteeg yàlla ak yonent yàlla lu yàlla santaane dañ koy def xalaat amul ci loolu moo tax malaaka yi ñoom ñépp sujuutal nañ aadama iblis nag moom toog suñ borom nee na ci jinne li bokkoon sujootul lu tax sujootul suñu borom yàlla subhanahu wa taala nettali nañu ko ci place yu bari ca moom dafa xalaat ni man la yàlla jëkk a bind yàgg naa feene di jaamu yàlla sama cosaan mooy sawara kii cosaanam mooy ban kon bu sujudee am moom moom a war a sujuutal borom bi daa di tënkal ñi fii ne fa fasaqa an amri rabbi daa génn topp ci ndigli boromam te loolu it mbokk ak lu la ko mën a yóbbee xalaat bu la ko mën a yóbbee rek yaa ngi jaar ci yoonu cheytaan borom bi nag ne waaw yéen nit ñi ndax da ngeen di jël cheytaane ak i njabootam féetewoo leen su ngeen dee woo wallu ñoom ngeen di woo wallu su ngeen dee sant ñoom ngeen di sant ca ñoom seeni noonu lañu ak a bon li ngeen weccee te it mbokk xamal ni la ëpp ci jaamu yàlla yi seytaane la ñuy jaamu te mooy képp kuy jaamu ci leneen lu dul yàlla rek seytaane lay jaamu doomu aadama yi am na ñuy jaamu jant bi weer wi biddiw yi am na sax ñuy jaamu ay golo am na ñuy jaamu ay lu ne doomu aadama dana ko jaamu waaye ñoom ñëpp seytaan rek la ñuy jaam suñu borom mu ne in yad'uuna min dunihi illa inaasa wa in yad'uuna illa sheytaanan marida képp koo gis muy woo leneen dul yàlla rek xamal ne seytaane moo laqu ci gannaaw seytaane suñu noonu lañu suñu borom ni daf ñoo santoon ñu jàpp ko mi noonu borom boobu nag di wax ay yéen nit ñi xam leen ne ba muy bind asamaan ak suuf amul kenn ku ma woowoon ne ko kay dimbali ma ma xam ni ma koy defere bi ma décidé bind seen bay aadama amul kenn koo xam ne ñëwoon na dimbali ma ci dara looloo tax ba mbokkoo li waroon suñu borom kenn waru ko bokkaale moom rek mooy aji bind ji te kenn dimbaliwu ko ci dara te mooy aji lu mën a doon di ka nga xam ne ni moo ko noot looloo tax ñooñu nga xam ne nag dañoo jàpp ne yàlla nguuram gi am na keneen ku mu ko bokkal yowmal qiyaama suñu borom dañ leen woo ne woo leen ñi nga xam ne yaakaaroon ngeen ne manes nañ leen a jëriñ suñu borom ne ñu woo leen dana am ñuy woo Uzayru ñii di woo Isa mën na am ñuy woo sax ay yonent yàlla Muhammad wala woo ay kum mën a doon rawatina sëriñu lislaam yi képp koo xam ne yaa ngi ko doon woo gannaaw yàlla di ko yaakaar ne mën na la jëriñ wala mën na la lor ku dul yàlla soo ko woowee du la wuyu borom baa ngi ñu koy détaillé ca baqara istabara allazina tubiu min allazina tabau keroog lay dañ ba set wecc képp koo xam ne dañ ko yaakaaroon ca du yàlla cam deeyaale ngërëmal yàlla ña ko toppoon keroog lay dañ ci ñoom amma ñi nga xam ne it dañ doon woote ci ñu jaamu leen ñoom it da ngay gis ne keroog daan denc ña leen doon woo waaye du tee ñoom ñëpp ñuy ànd tabbi sawara borom bi nee na noonu lay defee seen diggante alkaange goo xam ni ay benn njëriñ du mën a jóge ci kenn jëm ca ka ca des borom boobu nag ne keroog lay jox ndigal malaaka yi ñu indi sawara suñ ko gisee dañu xam ne sawara bii day fokk mooy seen wàccuwaay te duñ mën a am fenn fu ñu mën a jaar ba mucc ci sawara boobee te it mbokk julit dafa war a gëm ne yàlla mi bind asamaan bi yàlla mi bind jant bi ngay seen bind na sawara ba pare ma ngi ko denc fa mu ko denc yowmal qiyaama la koy indi ngir tabbal ci ay noonam yal na yàlla musal ñi ci sawara mi ngi noonu Cheikh Ousmane ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا barakallahu fikum suñu borom mu ne walaqad sarrafna fi hadha alquran ñun de dañoo teqalee ci alquran ji linnaasi min kulli masal ñeel nit ñi ci bépp façon misaal wa kaana al insaanu aksara cheyin jadala waaye doomu aadama day lum mën a doon ci mbir moo ca dàq dàgg sante وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى dara du tere nit ñi ñuy gëm heure bu leen njub dikkale wa yastaghfiru rabbahum ñu jéggulu seen boroom illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin xanaa lu dul def leen dikkal aaday ñi fi jiiti woon aw ya'tiyahum al'azabu qubula wala mu dikkal leen mbugal ma ñu doon ñu jàkkaarloog moom وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين duñu yenn mukk yonent yi xanaa lu dul ñuy bégalaate ak di xuppaate wa yujaadilu alladina kafaru bilbatil yéeféer yi nag daañu nekk di dagg sante ci ay neen li yulxidu bihi lxaq ngiree ñu daal di cay mën a sànke la nga xam ne muy dëgg wattaxasu ayaati wa ma unziru huzwa daa di jàpp samay kaawtiif samay aaya ak lañ leen xuppe woon def ko loo xam ne lu ñuy yëjjëri di ko saboote mi ngi noonu mbokk suñu téere bi ñu jàng suñu borom nee na façon misaal bu ne dóoral na ko ci doomu aadama yi looli lan moo nekkoon njëriñam mooy ngiri nit ñi xam seen màggaayu boroom xam seen xikma boroom xam seen yërmaande boroom borom bi dóoral nañu misaal ci asamaan yi ci taw yi ci géej yi borom bi dóoral nañu misaal ci façon bàyyima yi ci picc yi dóoral nañu misaal ci histoire yi romb woon dóoral nañu misaal ci atte xeet yu jëkk ya ña ca baaxoon fu ñu mujjee ña ca bonoon fu ñu mujjee yi yépp da ngay gis ne mbokk alxuraan mi ngi nii suñu borom teqale ko ay thèmes yu dul jeex ba yow mi nga xamee ne nii yàlla may na la ngay lire alquran di ko comprendre da ngay gis ne doo doyle ci téereb yàlla boobee comme na ko Ousmane ibn Affan doon waxee nee na xol yi feebar moo tax julit di jàng alquran ba mujj mu koy tëj waaye bu xol yi doon dund doomu aadama du man di du doylu mukk ci jàng la nga xam ne nii mooy téereb borom boobee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na ci benn xeex xeex boobee bañ ca jógee ñenn ñi di wax ci ghazwatu banu mustalaq mu am ñaari ci waa ansaar ñoo xam ne daf leen wax ni dem leen ngeen taxaw garder armée bi ñoom ñaar ñu taxaw di relevante bu kii dee nelaw kii taxaw ki nga xam ne mooy xale ansaar bi waroon a yor relève bu garder taxaw dinaa fi la morom baa ngi nelaw ba mujj am benn waay bu ñëw rek yoot dóor ko benn fit mu daal di sempi si fit bi continuer naa fi la waa ji dóor ko beneen fit mu sempi ko continuer naa fi la ba troisième fit bi moo yee mbokkam ansaar mi mu tëddaloon waa ji jóg gis deret ji mu ne ko waa yow lii lan la mu ne ko am na benn waay mi ngi ñëw fii ci gannaawam fekk kooku dañoo reyoon soxnaam ca xare ba mu ne nag du tëdd ci law ci lan lu dul dana rey yonent yàlla bi loolee bi ko mbokkoon saar bi waxee waaye yow tax yéewuloo ma mu ne ko hoo waa ji def maa fekk ci suratul kahfi vraiment ni ma ko doon jàngi mënu ma ko woon a dagg gannaaw bañ ko dóoree ñetti fit mais nee na mënul dagg saar bi muy jàng mbokk ñii ñooy génération bi nga xam ne amuñu télévision amuñu portable amuñu tonne d'information yi ñu leen di intoxiqué gu dégg ba teg seen xol yi dañoo dundoon looloo tax tiire bi yàlla bi buñ ko daan jàng daawuñu ci tay daawuñu ci toqi amul lenn lu ko daan perturbé ndax lu ci yàlla teg la ci qissa ci ay misaal loolee boo demoon lu bari ci borom xam-xam yi ñoom dañ ciy jàpp sax ne deret joojee kon nekkul loo xam ne ni sobe la bu mën a yàq julli ixtilaaf la ku mel ne Cheikh Nasrul Albani ci ñuy gën a défendre loolu ca la bokk almuhim lañ ci ittee loon rek mooy un jeune bu taxaw bañ dóor ko ay fit loolu dana la jaaxal peut-être dana la jaaxal yow waaye wallahi toog na ak sama benn mbokk bu ma leen di bari lu wax fii El Hadj Fajur Gueye yal na yàlla dajale ñu ngum ci àjjana ya mas nañoo toog benn bis maag moom ñii seetaan télévision nii le xalif général de kulli mbalaxkat ñi dàq tëgg sabar ci Sénégal ñu koy interviewé am waa ji na ko waaw mais ndax sabar dana faj mu ne ko waaw xanaa gisoo ñi ndëpp yi da ngay gis ku daf bu ñëw dañ koy tëggal ba mu jóg fecc daal di wér complètement mu ne man su ma nekkee salle di répété danaa toll foo xam ne soo ma doxewoon gannaaw dëbb ma paaka sax du ma ko yëg wallaay ka may wax tey ma nga ca laaxira waaye nee na bu am na fu muy toll ci ci tëgg nee na boo ko fekkoon dëbb ko paaka sax du ko yëg loolu it ngay mën a comprendre ndaw ansaar bi fi alquran yëggoon ci xolam muy jàng suratul kahfi ban tëggu ko ñetti fitt teewul mu continuer am njàngam yàlla mi dundal leen seeni xol yàlla na yàlla dundal suñu xol borom boobu ne waaye teewul doomu aadama dafa mën a dàgg sante moo ko da ngay gis ne ki nar a texee di moom loo ko wax mu ne waaye nag mais nag mais nag doomu aadama yi mënoon dàgg sante ci ci génération yu jëkk ya bari nañu waaye ñun nag ñoo tombeek ñi jël coupe bi mbokk suñ jamonoy tey jii yal na yàlla yërëm mbokk boobu di Cheikh Amidou Kane daana wax ne tubaab bi daf ñuy jàngal l'art de vaincre sans avoir raison ku jàng ci école tubaab kenn du discuter ak moom ba yee ko abadan gars yi ba ngeen dalee seetaan télévision ba léegi débat yi am sur le plan sport politique sur le plan culturel sur le plan lu mu mën a doon ndax mas ngeen gis ñaar ñuy discuter bu mujj kenn ki jox moroom loo xam ne kaa wax nga dëgg ñu daal di tëj émission bi ndax mas ngeen koo gis déedéet kii day wax kii di wax kii di wax ba léeg-léeg ay corpañ lay terminé kii di ay wala ay saaga ñu dem que de poisson lu tax mooy kenn du convaincre sa moroom loolu nag mbokk ëpp naa def ci julit julit da ngay doon nitu dëgg foo gis dëgg nga nangu ko mi ngi noonu ci xam ne ci la la yàlla di yëkkatee bokk na ci loolu it sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam ñëw na fekk Ali ak Fatima ñaari doomam yooyu nga xam ne seeni appartement ñu susoon ca Madina yonent bi xaaju guddi déggu leen ñu jóg mu ñëw fëgg néeg bi Aline waaw du ngeen jóg naa fi la Aline na ko suñuy bakkante mi ngi ci loxo yàlla bu ñu ko delloo rek daan jóg naa fi la Ali nee na maa ngi dégg yonent bi di dóor poj ba naan wa kaana al insaanu aksara shay'in jadala eh waay doomu aadama mën a dàggasante waay te mooy loolu loolu ko Ali wax xam na ne loolu ak dàggasante la waaye ala kulli xaal it ñu dégg ci ne ngallaawaay ndaw ñi nañuy dundalaat qiyaamu layl te it parents yi di leen ci ñaax borom boobu nag subhanahu wa taala ni nit ñi dara teewu leen ñu gëm jéggulu seen borom xanaa lu dul la dikkaloon ñu jëkk ñu dikkal leen wala mbugal mu tar ca mbokk génération yi fi jaar kenn xamul nu mu toll xawmu huut nuux saalax kon yow yeneen bi bul sonn gis nga waa màkk yi loo mën a waxit duñ la gëm xanaa lu dul mbugal mu tar dikkal leen borom boobu nag subhanahu wa taala ni yónniwuma yonent yi lu dul ñi leen di bégal ak ji leen xëpp waaye mbokk yonent yàlla amul njëriñ bu mu yoral xeet bi amul lor bu mu mën a fanqal xeet bi lépp ci loxo yàlla la nekk lim man daal mooy ku def lii àddina la jëm ku def lii safara la jëm donte ne yéeféer yi suñu borom nee na du ñu deñ di indi lépp lu yàlla wax ci dëgg ñu indi ak neen guñ teg ci ci wetam ngir mën a dàq la nga xam ne mooy dëggoog yàlla ga waaye ala kulli xaal ñu ngi ñaan suñu borom yal nañu boole ca jaamam ñu gëm ay yonentam ca topp leen mi ngi noonu Cheikh Ousmane
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موئلا barakallahu fikum suñu borom mu ni wa man azlamu moo ana ko gën a mën a tooñ mimman zukkira bi ayaati rabbi ci koo xam ne fàttali nañ ko aayay boroomam fa arada anha mu daa di dummoo yi ci loolu wa nasiya ma qaddamat yada daa di fàtte la nga xam ne jiitaloon na ko ay loxoom inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu ñun de yàlla ñoo def ca seen kaw xol yi ay kiiraay ba duñ ko mën a dégg di ko comprendre wa fi azanihim waqra ñoo def ca seen nopp ya poids yu diis ba duñu mën a dégg wa in tad'uhum ila alhuda soo leen di woo jëme ci njub fa lan yahtadu idan abada duñ mën a doon ñuy jub mi ngi noonu mukk wa rabbuka alghafuru zur rahma sa borom yàlla mooy kiy jéggalaatee mooy borom yërmande ji law yuaxizuhum bima kasabu bu doon day jàpp nit ñi ci la ñuy fàggu rek la ajjala lahum alazab kon doon na gaawe ñeel leen mbugal ma bal lahum mawidun lan yajidu min dunihi mawila la am kay mooy ñeel na leen dig boo xam ne duñ mën a am gannaaw yàlla fenn fu ñu làqu jëm wa tilka alqura ahlaknahum lamma zalamu dëkk yaa ngi noonee day ñun yàlla alak nañu leen ba ñu tooñee wa ja'alna li mahlikihim maw'ida defoon nañu it ñeel alkaange gañ leen waroon a alak li nga xam ne muy ab dig bu kenn dul woon wuute mi ngi noonu mbokk doomu aadama yi réer ñaari façon lañu mooy koo xam ni daa juddoo ak réer waaye kenn mësu koo waar ku mel nii lam nekke baaxul da ngay gis ni su dee ne dafa dund ci loolu ba dee ca sax kenn mënul dogu ci ne safara la jëm bal tegtal ya nga xam ne moo leer ci loolu mooy ñooñu yowmal qiyaama la leen seen borom yàlla di nattu ña ca yeyoo tàbbi ci ngërëmam xam na leen ña ca yeyoo woon ne buñ dajeeg yeneen te mooy ko xam na leen loolu mooy li am amma nekk yiis ci doomu aadama yi mooy koo xam ni nekkul ci yoonu njub ñu wëlbati ko waar ko xamal ko ne ko day yoon bi nga jaar safaanoo nag yoonu yàlla mu daal di lànk bañ a topp yoonu yàlla mbaa ko kooku la ñuy wax ku féttéerlu kooku la ñuy wax ci lislaam sax nitug bidaa al muqtadi ci lislaam dañ naan man uqimat alayhi lxujja suma yusirru ala bidaati ki ñuy tudde ne nit yi nitug bidaa la mooy koo xam ne leeral nañ ko ne ko nii ngay jaamoo yàlla day bokk nag la ko yonent bi doon defee ba pare mu fitteerlu kooku lañ naan nitug bidaa la loolu kooku mooy ki yis si doomu aadama yi amma la ca yàlla subhanahu wa taala teg ca moo di ne ne wa nasiya ma qaddamat yadaa fàtte na la nga xam ne ay loxoom jiital na ko loolu it mbokk julit du mel noonu mbokk julit da ngay gëm ne sa borom mooy jéggale comme niñ ko nar a jànge ci kanam waaye nag su la yàlla nattoo nga def ay bakkaar bakkaar yooyu ngalawaay bu ko fàtte dee ko bàyyi xel bal lenn ci borom xam-xam yi sax dañ naan li suñu borom naan ulaayka yubaddilu llahu sayiatihim xasanaat ñi def ay bakkaar yu mag tuub ko yàlla da koy wëlbati ko def ko ay tuyaaba ñu ne la nga xam ne heure bu xelam ne yar na ci bakkaar ba mu daal di jéggulu daal di rëccu loolee ay xasanaat lay doon yoo xam ne nii day mujj far bakkaar ba loolu kon mooy dulit bu baax bi mooy bañ a fàtte bakkaaram mu am loo xam ne dana la fàttali yowmal qiyaama suñu demee pour aadama ñëw ñaan yàlla mu atte jaam yi aadama lu muy wax man de maa lekkoon garab ga ma yàlla tere te moo ne yàlla baal na ko de nuux li muy wax maa ñaanoon demoon di laaj yàlla sama diggante ak sama doom ba ñaan yàlla mu alak suuf Muusa lu muy wax man maa reyoon nit ila axiri loolee ay tegtal yooyu suñu borom bi mu ñu koy won daf ñuy jàngal rek doomu aadama bi nga la waay bul fàtte njombe ya nga defoon loolu day tax nga modeste day tax nga comprendre ñeneen ñi tamit mooy yow boo gisee julit bu nekk ci tarxiis nga ñaan yàlla baal ko jubal la comme ni mu la jubale yow ndax yow it jaaroon nga fii yàlla jubal la kon ñaanal yàlla jubal ko baal la comme ni mu la ko defaree borom boobu subhanahu wa taala nag bokk na mbokk li gën a bon ci ñu yées ci doomu aadama yi mooy ñi nga xam ne seen bakkaar fàttewuñ ko waaye dañ koy puukare woo mooy di fàttali ko njaaloo ga nga defoon càcce ga nga defoon lu bon la nga defoon loolee moom ci li gën a nekk musiba ci musiba yi ca la bokk borom boobu nag subhanahu wa taala ne li ëpp ci nit ñi bañ gisee yoonu dëgg lànk bañ caa jaar yàlla moo leen fay fay gi gën a bon gu yàlla di fay jaam ci kaw suuf mooy mu kaste xolam ba dootul xamati lay dëgg ak lay neen tëj ay noppam ba ak waaraate mënatu koo jëriñ lii mooy nattu bi gën a rii bu yàlla di nattu doomu aadama ci kaw suuf loolu la Muusa ñaanoon yàlla defal ko firawna baram boobu nag subhanahu wa taala ne moo tax ba boo leen di woo ci njub duñ mën a jub bu abadan te mooy képp koo xam ne gis na yoonu njub profité wu ci féccirlu ba yàlla kaste xolam mboolem yenente buñ daje woon mënuñu koo waar abadan borom boobu nag di dalal suñu xel ne mooy alxafuur zur rahma mbokk yàlla mooy jéggale mooy yërëmaate amul benn doomu aadama boo xam ne yegg nga ci bon ba yàlla seexlu la amut misaal yi ñi ci suñu borom wax ab yonentam wax ñu ko misaal mënu ko passé mbokk jàpp naa kenn munta bon ba dab firawna waaye gis nga suñu borom nee na Moussa demal ne firawna hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fataxsha demal nga woo firawna wax ko wax ju nooy ju dal ngiree mu comprendre mu tuub ma baal ko yonent bi alayhi salaam wëlbati ko wax ñu ne benn waay rey ne téeméeri bakkan téeméeri bakkan te ki mujj rey ab abit la woon koo xam ne dundam yépp da koo jagleel jaamu yàlla waaye amul woon xam-xam kooku lu mujj rey mais bi mu tuubee tub gu sell yàlla da koo baal kon yow l'agresseur yow mi nga xam ne naan ko te sàngara yow mi nga xam ne ëmbal nga téeméeri jigéen yow mi nga xam ne loo mën a def defal waaye ngalawaay xamal ne bis bu sa xol bi sellee tuub gu sell sa digganteeg sa borom sa borom mooy alxafuur ca it mooy arrahim bi nga xam ni su ko neexee baal la li passé yërëm la ba nga bañ caa delluwaat te ñaar yooyu mooy jëriñ doomu aadama yàlla jéggal la li passé yërëm la ba nga bañ caa delluwaat huwa alxafuur zu rahma mu ne bu doonte ne doomu aadama yi heure bu ñu defee bakkaar rek mu alak leen kon daawul bàyyi ci kaw suuf kenn waaye gis nga mbokk yàlla ci mbaaxam da ngay nekk di def bakkaar dix ans vingt ans trente ans quarante ans yàlla di yokk say xéewal yàlla di la jàmmal di la may un délai délai boobu mooy lan mooy tànk yéggagoo fi nga war a sukuraate heure boo tuubee suñu borom yàlla baal la loolee mbokk benn occasion la benn chance la boo xam ne lu bëri ci doomu aadama yi nag seytaane galgal na leen foofu di ngi li imam bi wax de nee na loo mën a def boo tuubee yàlla baal la kon koy grawul yow jeune nga mën nga def sa jeunesse après nga tuub yàlla baal la waaye mbokk ñaar am na benn kan moo la wax ne jeunesse boobu da nga ko terminé ñaareel ba kan moo la wax ne da nga tuub ndax tuub yàlla moo koy may ku ko neex ci ay jaamam yàlla ngi jàng aay bi ci kaw suñu borom mu ne loo leen waar waar falan yahtadu idan abada loolu moo tax ba bokk na lu yàlla di nattoo ab jaam nga fettirlu ci bakkaar gannaaw ba nga ko xamee fettirlu yàlla di la waa kaay tuub nga bañ nga fettirlu mujj nag yàlla kaste sa xol ba doo nangoo tuub mukk looloo tax mbokk aayo yi heure boo koy jàng tey dafa war a nekk ab départ ci yow ah mbir mi ni la demee waaw ah yàlla day maa ngi nii tuub naa dellu ci yow lépp loo xam ne jiitalu nga ko ci bakkaar bu sincère rek suñu borom yàlla ci mbaaxam ak yërmandeem da ngay gis ne dana la ko baal borom boobu nag ne du def ku def bakkaar ci kaw suuf mu fay ko ci kaw suuf waaye am na fu mu koy xaare yowmal qiyaama ca loolu itamit bañ laa réeral yow doomu aadama ndaw ñu bari dañuy jàpp ne waaw ñu ne ñii jaarul fi neex yàlla lii neexul yàlla te yàlla am na kattan pourquoi yàlla di seetaan masalan américains yi pourquoi yàlla di seetaan israéliens yi pourquoi yàlla di seetaan la ñuy def ci Syrie pourquoi yàlla di seetaan agresseurs yi di def nangam pourquoi pourquoi suñu borom yàlla mu ne daa am dig boo xam ne kenn du ko wuti dafa am dig boo xam ne kenn du rëcc ñépp ñooy ñëw ca bu keroogee da ngay gis na suñu borom buy jàpp kenn du mën a am fenn foo jëm fu dul fenn loolu kon yow jullit loolu ngay war a xam àdduna kërug nattu la allaaxira muy kërug fay gi àdduna kërug liggéey la allaaxira muy kërug fayu ba yal na yàlla rafetal suñu liggéey ci àdduna te rafetal suñuy fay ci allaaxira defal ñu jannatul firdaws suñu wàccuwaay wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain oh. xam naa question bi muy wax mu ne waa ji def na ko dama bëgg nga jëndal ma oto waaye oto bi li ma ci man mooy mën naa ci ba cinq millions trois cent moom mu dem gis ab oto waxaale ko ba ci cinq millions mu ne borom oto bi boo demee ne waa ji cinq millions trois cent lañ koy jaayee léegi ndax trois cent millions yi day doon lu dagan ci moom mbokk trois cent millions yi du doon lu dagan ci moom ndax la chaque année bu demoon gis oto buy jar cinq millions six cent comme ni mu ko waxee du moom mooy jël trois cent mille am da ca dolli kon warul jël oto jënde ko cinq millions pare jël ci trois cent mille di ko lekk su dee na waa ji da koo yónni woon na ko jëndal ma oto ala kulli xaal islam dana daganal la nga xamee ne nii moom mooy courtier bi charte mooy mu ne la demal jënd soo jëndee su boobaa danaa la jox nangam wala boog fekk waa ji moo amoon xaalisu boppam dem jëndi oto bi ci xaalisu boppam ñëw jaay ko lu mu ko mën a jaayee mu jaayee ko waaye indi ab client ñu waxaale pare nga ne client boo demee ne ko lii la ci la ngeen wax du loolu jullit du def loolu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam question bi balaa borom question bi nee liñ ko laaj Naam.
question bi ni ñu amee dëgg mooy waa ji daf ne moom cinq millions trois cent la am ne waa ji wër naa oto bu ni mel ñi ma gis yëpp nanguñ ma ko jaay loolu léegi mu wax waa jooju kooku nag gis même oto bi wax ak waa ji waa ji ne ko oto bi cinq millions xam nga lan sawaay ne ko nag cinq millions laa man moom waxoon na ko ëpp loolu daal ba ne ko nag loolu laa man moom it mu ne ko euh, jaay ma ko ci kii boobu loolu ma jubóog yow ci trois cent yi waaye moom lay dekk doo déclaré que lu ëpp loolu ki la jël trois cent mille yi moom man dafa wax dama ne ko bayu maa lay sañ rek jàpp naa ne dana ci dugg wala ku li xaal du du dàqanteeg li ñu wax rek moo di ne daal nit ki bu dee dafa laa jënduloo la nga jëndee nga koy wax lum la cay jox mu jox la ca mais doo dem jënd ba pare comploté ñëw ne lii nga jënd fekk jëndiwuloo loolu xoolal tey waa ji tey bu demoon yoru oto bi gis ci défaut ndax amul droit delloo si ko am na droit delloo si ko mais daf ci gis défaut su boobaa fekk yow yaa nga waxoon cinq millions trois cent fekk cinq millions nga ko jënde almuhim daal moo di ne ne nit ki nga xam ne dafay doon kuy jël jënd di jaay kooku lu ko neex mën na ko jaay ki ñu yónni am nga droit ne ah su ma ko amee commission ñaata laa ci am mu leer mais lépp loo xam ne ay muxam la yooyu dugal ci suuf di ko nëbb sa mbokku julit julit dafa war a moytu loolu ah ah waaw voilà voilà lépp loo xam ne daal julit yaa ngi koy def intermédiaire te bëggoo keneen ki yëg ko rek loolu moom julit dafay war a moytu lu deme noonu noonu waaw barakallahu fiikum waaw waaw bi si penc ala kulli xaal borom xam-xam yi dañu am tuuti ixtilaaf ci ban suuf la ñuy yàlla di di àttee waaye bu ñu xoolee zahirul quran moom ci sunu suuf bi lay doon suñu borom mu ne minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra ca moom lañu yàlla waxit mooy نسير الجبال فترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وأريد على ربك صفا li suuf bi parce que la leen ci yëpp mooy li borom bi ñu wax naan yow ma tubaddalul ard xeyr al ard ñu jàpp ne beneen suuf lay doon waaye tubaddalul ard xeyr al ard mooy suuf bi niñ ko miinee dafa am ay xur am ay montagne ay dex suñu borom nag yowmal qiyaama day maasale montagne yëpp def leen poussière yóbbu leen ñu fatt xur yëpp suuf talli ñareet bu ko defee da ngay gis ne melul comme na suuf ba meloon amul garab li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax rek amul benn laquwaay ñeel kenn amul lenn lu ñuy xàmmee fenn dex amul déeg amul garab amul lépp tàlli ñaret ca la suñu borom yàlla nag dekkal jaam yi atte leen ci kaw suuf gannaaw ba nag àjjana moom beneen mbir la alaxira safara beneen mbir la suñu borom doog a séddi la ay jaamam wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam aleykum asalaam wa rahmatullah ndax pour to tuub bu sell wareef la julli ñaari rakka tuub moom ay chartam mooy nga rëcc dogu na dootoo ko def jéggulu sa boroom yii bàkkaar bu mu daje yàlla baal la amma nag bokk na ci lu bokkul ak loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne amul benn julit boo xam ne dana jàpp rafetal njàppam jóg julli ñaari rakka lu dul yàlla baal ko ay bakkaaram loolee kon boo gisee ne yow la nga def ci bakkaar nekk na bakkaar bu grave nga dem jàpp julli ñaari rakka ñaan yàlla mu baal la loolee day doon rek luy gën a rafetal rafetal tuub gi waaye charte tuub moom mooy li ma la wax mooy fokk mu nekk loo xam ne da nga ko rëccu bakkaar bi bàyyi bakkaar bi doog na dootoo ko def jiggalu yàlla bu ca àq doomu aadama nekkee nga delloo àq bi ndax kat doo jël cent mille francs jàmbur ba pare taxaw naan yàlla baal ma baal ma déet da ngay delloo cent mille francs jàmbur ba pare yaa ngi dégg luy daal bépp bakkaar bu mu daje moom julli nga am julliwuloo yàlla dana la baal insha allah waaw xam naa waaw ko ngeen baal ma ñu mujj ci mbokk bi rek waaw bismillah waaw waaw bismillah waaw waaw mbooloo bi ñuy wax Ahmadiyya waaw moom day kooku day mbooloo yi gën a bon ci kaw suuf la bokk boo gisee ligue mondiale islamique ay kuréel yi jóge ci lislaam kenn xamul nu mu toll kuréel yooyu yépp nag xam nañ ne bari nañu ca dérapé mais teewul dañ leen considéré ay jurit lañu bokk na ci chia yu bon yi dañuy considéré ay jurit lañu waaye ligue mondiale islamique li nga xam ne mooy ahmadiya boole wuñu leen ci kuréel yi lislaam yi boo ko ahmadiya benn mbooloo la boo xam ne anglais yi ñoo ko créé benn saay-saay bu ñu wax Ghulam Aga Khan moom la ñu jël jox ko alal judul jeex ci biir Inde wootaloo ko tur bi ñu boole ci Ahmad comme Sénégal gi am nañ ko fi woote yonent yàlla la Muhammad bokkuloon ci aw turam waaye dugal na ci Muhammad ñu ngi noonu yéen ñi meen Dakaaru xam ngeen ko ala kulli xaal ñu te ñu daal di cay def Ahmad Aga Aga Aga Ghulam Ahmad Aga Khan léegi nag ahmad boobu ñu dugal ci turam ñu daal di koy tudde ahmadiya ngir jullit ñi jàpp ne ci ahmadiya la ñu am façon jaaminu yàlla yoo xam ne nii seeni julli dañ koy jaxase seeni koor dañ koy jaxase lu bari ci pas-pasu lislaam gëmuñu ko dañuy gëm it ne gulaam ahmad yonent la bu yàlla yónni loolu nag la nga xam ne moo ko tasaare ci adduna bi mooy anglais yi ak alal ju dul jeex gam bi amoon nañ fa doole ju bëri Yaya Jammeh ak tous ces mille défauts quand même xeexoon na leen fa ba génne leen fa ci la ñu replié lu bëri ci Sénégal fii ci Parcelles Assainies ji unité 13 am na benn école bu ñu fi ubbi ñu fi bu ñu fi ubbi woon boo xam sax école bu nu mu mujjee xale ba nga xam ne moom lañ fa tegoon am na bis mas naa daje ak moom man docteur Ahmad Lo imam Aboubacar Sall imam Galaajo ñu daje fii ci kër oustaz Modou Gueye toog ak moom wax ak moom mu wax ñu yu bare bare bare ci affaire Ahmadiya boobu gars yi propose ko woon na ko li da nga koy bàyyi daañu la utal foo dëkk nga jàngi waat jàngi lislaam école boobu nga nga génn ci bam joxoon ñu foofu ay principe am waaye xaw ma nu mu mujjee ci gàttal daal mbokk lépp lu taq ci Ahmadiya seeni école bu leen fa dugal seeni doom seeni jàkka bu leen fa jege ñu bon lañu xeex lislaam moo tax mu jóg yal na yàlla musal ñu ci seeni pexe wallahu subhanahu wa taala alam waaw xam naa ngeen baal ma rek ki da ko teeloon a indi kayit bi mu ne dañ doon julli ak imaam léegi biñ demee bay imaam di waaj a rukkoo mu dem teg ay loxoom teggi ko doog a rukkoo mu ne ndax bi ñu paree imaam sujootul ndax warul woon a sujoot su dee imaam loxo yi rek la teg jotul sujud loolee duñu mën a jàpp ne dafa war a sujud ñu ngi mel ne rek la ñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon wax kenn ci yéen bu toogee bu jo- bu jógee ci sujud war a toog mu fàttee bay jóg waaye teqalikowul ak suuf na toogaat rek dara jaru ko dara waru ko ci masalan sujud nga ba pare waroon a toog nga daal di yëkkate say tànk mais nag say loxo moom jógagul am na xadit riwaaye boo xam ne sax danaan bu dee matalugul ab taxawaayam su boobaa na toogaat rek dara waru ko amma bu doon lu mel mazhab malik ñoom dañ naan bu dee loxo yi ak tànk yëpp teqalikoo na ak suuf ah ñu ne su boobaa kon na continuer su paree sujud waaye comme ni nga waxee imaam loxo yi rek la teg teggi ko daal di koy teg ci óomam teg boobu mu teg loxo yi rek ca ab jëm ak i óomam yëgsiwul loolu it duñ jàpp ne dafa yokk julli ga wallahu subhanahu wa taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain